zeyd ibnu xaarisa euh, zeyd ibnu muhammad lañ ko daan wooye ñu wax ni dafa am ab moom ab arab la bu leer doonoon asgor su set wecc ab geera amoon léegi ñu gañe leen jàpp ko ñu ko jàppee yóbbu ko jaay ko ci marché yi muy wëndeelu ba am ku ko jënd jox ko xadija kado soxna xadija moom moo ko may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko mayee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon euh, jaam bu nekk ci loxoom di ko jaam waaye baayam di wër di wër di wër ba dégg ñu ne ko sa doom mu nga màkk bi mu ñëwee màkk di laajte bañ ne ko ci loxol Muhammad la nekk booba nubuwa gi ak séegul feeñagul bi ñëwee ci yonante bi ni ko damaa dégg ñu ne sama doom dafa nekk ci sa loxo ma ñëw ngir jot si ko yonante bi ni ko dañuy woo Zayd mu ñëw bu ñëwee bu la tànnee nga ànd ak moom dem ci lu dul ngay joxe ak pay bu ma tànnee nga bàyyee ko fi baay bi bëgg lool ngir jàpp na ne xalaatu sa ñëw di tànn keneen ku dul moom waaye bi baay bi ñëwee yonente bi ne ko ndax xam nga ñi mu xool ne waaw kii di sama baay la mu ne ko kii mu ne ko kii sama nijaay la mu ne ko dañoo ñëw ngir topp si la ma bëgg boo leen tànnee ñu yóbbu la ci lu ñu lay jot boo fekkee man nga tànn ñu bàyyi la fi Zayd ibn Haris ne ko duma tànn kenn ci sa kaw baay bi xool ko ne ko dangay tànn ak njaam ci sa baay ak sa say mbokk mu ne ko kii li ma xam ci moom ciy jikko du ma tànn kenn ku dul moom te booba de moo ne yonente gi ñëwagul nu góor gi ñëwagul waaye jikko yu rafet yu mu xam ci moom tax na ba mu ko miinee mënatu koo bàyyi moom Zayd ibnu Haarisa te moo tax bi yonente bi woote nu góor mu bokk ci jëkk gëm kon tawfeex jooju la ko yàlla defal fa naka noonu bokk na ci ñi wuy woote islaam ci njëlbeen ga ñu néew ci sharif yi màkk yi ak ñu néew ci surga yi ku mel ne Usmaan bun Affan ci ñi jëkk gëm la bokk ku mel ne Az-Zubayr ibn al-Awwam ci ñi jëkk gëm la bokk Abdurrahman ibn Awf ci ci ñi jëkk gëm la bokk Abdullahi ibn Mas'ud ak Sa'd ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaydillah ak Abi Zarr al-Ghafari ak Suhayb ar-Rumi ak Amir ibn Fuhayra ak ñeneen yoo xamante ni ci njëlbeenu islam ñu ñëpp ci tàmbali bi rek la ñu daal di gëm ñun ñëpp nag dañoo dugg ci islaam te booba volontaire bu mag mi ngi ci dugg ci islam ndax Abu Jahl ci kilifay Quraysh yi la bokk bokk ci ñi gën a tar nuñ noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi da ni yonente bu ne am ngam firawna man day Abu Jahl nii mooy samam firawna te dafa doonoon ku ku guddum xel doon fi am daraja lool ci biir Quraysh ba abul xikam lañ ko daan wooye waaye yonente bi moo ko wooye Abu Jahl ne du abul xikam Abu Jahl boroomu réer la abu jahal moomu daraan def comme dégg ñu ni gëm nga jëblu nga ci yonante bi da lay yedd gàcceel la ci biir mbooloo ñu la yow sa diine baay ak sa diine maam yëpp nga wàccee ko dem tànn jeneen diine ku dof nga ku gàtt am xel sa daraja danañ ko sippi ko danañ danañ wàccee sa daraja ba nga xam ne li nga def tegoo ko ci yoon bu fekkee ab commerçant moo def loolu yi da ko daan wax ni ko li ngay jaay lépp danañ ko lambal danaa wax ñëpp ñu wàcc ci fi sa marchandise kenn dootu jëndante ak yow kenn dootu jaayante ak yow danañ yàq sa alal bu fekkee ku new doole la nag daf koy dóor ba noppi xiir nit ñi ci ñu noonu ko sax boole ci moom dana ko dóor xiir xiirtal nit ñi ci ñu noonu ko Abu Jahlin noonu la daan doxe kon loolu yi liñ ci xam danañ ci dégg ni ñii tuumaale islam ni islam jaasee ko tasaare dañuy wax lu leen waaye islam jaa si tasaaroo bëgg-bëgg la bu nit ñi xool ba mu doy leen ñu bëgg ko gar ci seen bakkan dara du leen ci mën a see génne islam tasaaroowul ci jaasi waaye ci convaincre nit ñi jox leen xalaat bu rafet bañ gëmal ko seen bopp gëm ko ci noonu lay islam tasaaroo yonente yi ci njëlbeenu nubuwa gi amutoon kàttan ba tax muy forcer kenn ci islam kon ku nuy islam ci jaasi la tasaaroo da wax lu la neex di wax wax yàq amutoon doole ju tax mu man a forcer nit ñi ci ñu dugg ci dina ci moom ak ñi ko jëkk a topp ñëpp dañ leen daan bundu xataal ci sababu ngëm gi ñu ko gëm moom yonente bi sallallahu alayhi te bundu xataal googu dana leer ci kanam tuuti kon woote bi yonente ci suuf mu ngoo ko ana nan la wootee ci kaw nag ñëpp déggandoo ko yonente bi kon am na lu mat ñetti at ginnaaw bu wax yu gi wàccee di woote ci suuf ba ni ko yàlla digale ni ko na woote bi jëm kaw nag te mooy fasda bi ma tuumar wa arid anil mushrikin ni ko nag xaañal te xaañal nag mooy leeral ko ca kaw ñëpp déggandoo li ñu la digal na ko xaañ ca kaw ñëpp déggandoo ko te du mooyu mushrikoon yi te mooy yéefari yonente bi daal di topp ndigal loolu ko boromam digal daal di yéeg ca kaw safaa safaa nag aw tund la wu nekk ci kaw doj wa ñuy wax euh, jabalu abi xab wala abi qabays ci màkk aw daj la ñuy wax abi qubays safa aw tund la wu nekk ci kawam yonte bi dafa dem ba ci kaw daj mu yéeg ci daal di woote ci kaw ne la yaa sabaha xeetu wootin la ko waxee ñu kii di woote ko moom am ñu ni muhammad la mu daal wax moom yonte bi ni yaa bani fulaan yaa bani abdul muttalib yéen doomi abdul muttalib yéen waa kër manaf daal di woote ñoom ñëpp ñu dajaloo si wuy si ko mu ne ndax su ma leen ni woon mbooloom fasa ngi nii di ñëw ci ginnaaw daj wii war a xare si ak yéen ndax dangeen ko dëggal ndax da ngeen ma dëgg ndax dangeen ko dëggal ñu ne ko xamewuñ la aw fen mosuñoo xam ci aw mu ngi leen maa ngi leen di xupp bëggalum yàlla mu tar yàllaa ma yónni ci yéen Abu Lahab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 Xuraysin ñoo doon njiite arab yëpp waaye nag seen buntu koom-koom la moom xiram yooyu ndax arab yëpp ga ñoo gëmoon kaaba waaye kenn ku ne samp fa ab xiramam bu muy jaam dañu fa daan daje di indi ak jur ñi di indi ay giléem ñi di indi ay xar ñi di indi ay luñ man di ko indi di ko fa rey di ko fa rey di ko fa bàyyi kon waa Xuraysin ñi nga xam ni ñoo saytu dëkk boobu